Djibril waar bokk ci kuréel googu noonu di doxal seen agenda loolu defoon nañ ci vidéo lu yàggul waaye dañ ci reveniraat pour ñu umpale gravité li nekk di xew actuellement Sénégal li nekk di xew mooy kenn ci élément góor jigéen yooyee ak programme boobilee liñ doon xeex ñun depuis des années moo fexe ba déglu kenn ci ñu doon combattre agenda borom ñaari tur yi waaye nag mu defee ko ak xarañte bu jéggi dayo kenn dong lañu tànn porte ko te moonte mënoon nañ ci boole ñun ñii ñëpp ñu doon tudd turam ne membre la ci mbootaay doo dooleel ko jigéen yi mais defu ko stratégie boobu noonu daañ ci taxaw ndax réussir nañ li ñu bëggoon parce que objectif bi moo newoon créer benn climat de désaccord benn réero biir ànd sàmm jikko yi mbir mi dafa weesu Cheikh Oumar Diagne bu ñu noppee ci moom ànd sàmm jikko yi la ñuy attaqué balaa nag ñu yegg ci loolu lépp ñun dañuy artu ku yaakaar ni waa ji plainte ab dof la wala kuy teli teli yaa ngi nax sa bopp ak li xew barki démb muy tee bi ñu tee Cheikh omar Diagne loobi góor jigéen ni dañu réussir ñun liñ doon ragal depuis le début mooy ñun sénégalais yi àndoon ci benn objectif depuis le ëpp benn at xam musulman chrétien murit tidiane xaadir laayen ibadu rahman ngir freiné agenda góor jigéen yi tey élan boobu noonu moo nekk di menacé wu suñuy non di ñu retaan lu tax Djibril waar tànn dong Cheikh Oumar Diagne dal di koy porter plainte te moo mooti ñun ñëpp mënoon nañu cee boole ndax li Cheikh Oumar Diagne wax la ñu waxoon moo xam ànd sàmm jikko yeeg ñeneen mooy Cheikh Oumar Diagne am na jafe-jafe ak yenn mbokku taalibe yi te gis na ni buñ ko téyee du am soutien bi ci war te effectivement loolu la ñu nekk di assister léegi ak situation bii nii liñ ci bëgg mooy mettre mal à l'aise collectif ànd sàmm jikko yi yàgg ànd ak Cheikh ci bépp combat donte après dafa démissionné. Manam soit ñu mandu ci bañ ci wax benn parti ci askan wi jappel leen ay traître ño xamni dañu sétane sen ñoñ wala ñu wax ci né dañuy jappel Cheikh Oumar Diagne ci li ko dal yeen talibé yi méré leen né lu tax ngeen koy soutenir léegi wéddi nañ leen su ko défé and samu jikko yi xar ñaar ku ne di xëc sa wét li la Jibril war ak mbootaay góor jigéenam yi doon sakku té tay réussir nañ ko ci benn côté bu ngeen démé suñu page Facebook xol commentaire yi di ngeen gis li gaay réussir te moo tax ñun ñëpp ñoo bokk li ñu xex ñoo bokk même yéene yi moo tax ci suñu dernière publication ci dossier bi ñu né borom ñaari tour yi amati nañu ndam du lu ñu neex waaye moy li am. légui dañu ñëw ci mbir mi rien que les faits yam ci dossier bi tax ñu tek loxo Cheikh Oumar Diagne ndax ba tay am nañu comprendre wul lépp nag mi ngi dooree ci kàddu yi dafa am lu ñuy woowee PCA. PGA mooy Parliamentarians for Global Action. Mhm. PGA ñu ko créé en 1978. Euh, PGA boobu ay député kese ci mën a bokk. Mhm. député kese laa xam ne ci mën a bokk. ba ñu koy doog créé ñu ko tuddoon euh, Parliamentarians for Law Order. Mm-hmm. Madame, dafa le nouvel ordre mondial bi nga xam financé le la ci David Rockefeller. ok sen siège aujourd'hui mu New York. Mm-hmm. en face Nations Unies. Mm-hmm. Rockefeller manam ay góor un yu mak ak ay franc-maçon ñoo taxawal kuréel bobu PGA a am nañu membres dans le monde actuellement. Il y a ñoom ay du ñu parlements dont le Sénégal fait partie. le Sénégal ñun am nañu 13 députés sénégalais yu bokku ci PGA. yuy ànd ci liggéey PCA yi. Mhm. yu bokk ci agenda PCA. te ñun Sénégal leeral ñu ko te waxuñ ñu ko. Mhm. dégg naa benn mbaam nag buy ŋaax côté bële bu sant waar. Mhm. laajal moo xam ndax PCA la bokk. Ah. lii la Cheikh Omar Diagne waxoon samp laaj laaj ndax député bi sant waar dafa bokk ci agenda international boobee nga xam ni mbootaayu góor jigéen yee ko nas léegi ndax information boobu dëgg la am déet nee naa leen ñun defoon nañ ci vidéo spéciale li ma leen turu yi bokk ci agenda PGA boobilee ndax du ñu dégg teel rek ne damana effectivement jibril War dafa tënku ci manuel pour les parlementaires bi PGA tëgg ngir dooleel góor jigéen waaye yamu ci moom jibril War membre PGA la ci boppam ña fay nas di nocc député yi ñu yabal ngir ñuy sàmmaax ak yelleefu borom ñaari tur ci seeni réew waaye lan lañu sant ñoom jibril War dañ leen ci limal ñeenti poñ benn bi mooy nañu adopté Manam dolil bepp xeetu loi bo xamni da fay ay kuy xara borom ñaari tour yi ñaar moy nañu def seen kéemtalaay katan ba bepp goor jigin manam a am taxawu ci walum yoon am way liggey dal di koy yomb bu soxla faju mëna faju bu soxla jang nako nonu ñettel bi moy yeen député yi liggey ak ñun dakh leen bepp loi bo xamni ne way bi moy criminaliser walum goor jigen li bu leen ko nangu seen rew ñentel bi nak takku len ba dëgër jàmbaarloog bépp xeetu kaddu bu ñaaw bu ñu yëkëti diko tek ci deru borom ñaari tour yi ci programme bi la Jibril war teunku ba tey ko ñemewu ko weddi xibaar bu wër la bo démé ci situ PGA vérifier ko motax bëss bi ñu duggalé won proposition de loi ngir criminaliser walum goor jigen mo njëkk tepp melni dëmm buy jëfru parce qu'ay intérêt lañu menacer ci la wër ci média yi yëkëti kaddu bu nekk

ñoom li leen tax a jóg laa la wax maa ngi koy wax ci bët ak bët man damay tukki ji dem du diine. Mm-hmm. du ñu yëg seen yaram lu dul maanaam di toppatoo ay yeneen lobby yoo xam yam na góor ñu wàcc suba ngoon xanaa doo leen laaj ñoom fa ñu jëlee xaalis bi ñu am. da ragal ne loi bi c'est juste première étape mais li leen tax a jug dëggantaan wane guñ ko. ah mais yow kon ñu ci jàppoon terroriste yi ñoom de gis nañu jullee yow boo dem jàkk xanaa amuñoo ci ñoom. lii la Jibril Waar waxoon. diffamé waa Desamb djiko yi accusé len ay terroriste parce que loi bi arrangé wu mom ay kuréelu góor jigéen ñoo ko yónnee yàkkamti ko te kuréel yooyu noonu dégg ni Sénégal voté nañ fu loi buy daan góor jigéen yi defet la pour ñoom moom ak i li mo taxone taxoon Djibril War jël proposition de loi bi war criminaliser borom ñaari tour yi teg ci bakanam né bu jallé moy déna ñun nak ñun waa Xalaat TV ñun rek la concerné bu dé dañu yag xex nguur jigéen. di ko dénoncé ak mbooleem ku bokk ci ñoom tey kenn ci nu góor jigéen yooyu noonu porté plainte kenn ci ñu doon xeex programme bi ñu leen limal sànq muy manuel PGA bi di Cheikh Oumar Diagne parce que dafa tudd bokkam ci agenda boobee ba ñu tëjlu ko ci moom Cheikh Oumar ñun buñ ci noppee naan dañ ciy màndu ñi yàgg ànd ak ñun ci xeex ñaaw teef googee ay mbootaay tëgg pour suñu réew war nañu tiit ñun d'autant plus que vidéo bi ñu defoon ñun ci coordonnateur ànd sàmm jikko yi muy Ababacar Mboup naan ku mat a jàppale mi ngi nii ndax depuis ay weer mi ngi wër Sénégal ngir présenter leen programme bi kuréelu góor jigéen yi nas te ñu war ko xeex moom kër Mboup mooy wax ndeke jamono jooju noonu bi mu doon wër Sénégal Cheikh Omar Diagne na jël otom jox ko def ci carburant ngir mu matale mission boobu noonu ci lu kenn yëgul. ànd nañ ci yu baree baree baree bari lii may wax ma seede ko te jëmmi yàlla tax ma koy seede ndax kenn du ma fekk ci sama bàmmeel amul mbindeefu ma ciy fekk Cheikh Omar jël na ay position yu bari yoo xam ne si ànduma ceeg moom tey ànduma ceeg moom ëllëg te cautionné wu ma ko aussi waaye Cheikh Omar maanaam nga gis nit ku ko ëpp yitte ci lu baax jafe na loolu yàlla tax ma koy seede te loolu daf ko jëf lañ jëflanteeg man te nag wa ma shahid na illa bi ma alim na Cheikh Omar <coughs> doon na fi nekk na fi diir bu yàgg boo xam ni yor na oto te lii dama koy seede ngir jëmmi yàlla rek a ma seede Cheikh Omar daanaka otoom sama disposition la ko defoon nga xamni dafa ni ma yitte yi ngay dox dafa ëpp solo man limay dox ba fo soxla dara wax ma ma yónnee la auto bi ak chauffeur te buy ñëw dana ci defale plein plein essence ba mu ba mu fees te li bi mu koy def bokuma ak mom tarixa ci ñi wax ci lolu bokuma ak mom tarixa waaye xam na lu boole loo xam ne xam na ko ma xam ko te loolu yi tamit man war na ci ma seede ko àdduna sépp xam ko. kon jëm ji ñun duñ ko seetaan ak benn bàjjenu góor jigéen boo xam ni bu ay pexem sottee ëllëg suñuy sëtaati sët ci programme borom ñaari tur yi la ñuy tënku ay góor jigéen la ñuy doon wala buñ ko doon yi itam dëkk ak ay góor jigéen du leen posé benn problème comme li xew ci yeneen i réew. léegi nag lan moo tax ñu ne sànq jàppee woon coowul Cheikh Oumar Diagne ak Djibril War mi moy bu tu ci walum diffamation Tu kaso munu ci am ndax jibril War liñ koy tuumaal moko def ci agenda Tu as la tënku te ba tey ko ñemewu ko weddi ba ñu xamee ne mënuñoo pas Cheikh Oumar diane ci tuuma yoy nonu comme nit ñi defoon Pape ndjay journaliste ñu yok ci dossier yeneen muy menace xupp doomi injure public yëkëti kaddu yu ci ak insulte via système informatique ku saaga ko ci xarlo yu léegi ci lan la yoon sukkandiku ba dugal tuuma yi ci dossier Cheikh Oumar Diagne ak Djibril War parce que ci plateau Walf TV en 2021 Cheikh Oumar da ko taxé woon de mbaam ñoo ko déggandoo sànq waaye bu ñu fàtte ni ci même émission boobu noonu menaces yi ñuy wax Djibril waar moo ko defoon en direct Sénégalais yëpp di ko dégg. mais foofu laa ah. te di nga ñëw asaabu du loolu ngeen wax. maa koy yëgal ni moom ci perte. waxoon naa ko Pape Alé Niang. Mhm.

dañ fiy tere kuy joxoñ baaraam ni diw dafa jàppale góor jigéen yi donte am nga ci ay preuve ak lépp Cheikh Oumar Diagne nag wax nañ ko tout nattukaay képp la pour xool nu ñu mën a atteindre yeneen membre And Samm Jikko yi léegi nag ku ci nekk libre nga pour xool noo ciy taxawee mais ñun duñu soutenir injustice te loolu lañu ñu teg ci kaw Cheikh Oumar Diagne dañ ko war a libérer ñun duñu mës a encourager militant góor jigéen bu doy ni Djibril War ndax booy pexem sottee askanu LGBT la ñuy am góor jigéen dafay dagan ci biir réew mi. kon taxasol bi tey loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.